teggi ci seen jaaxle yi barkeel liggéey yi kenn ku ci nekk métier ma ngay nekk di yëngu yàlla na ko yàlla barkeel ku xëy di wuti la ngay wuti ba mu des mooy yàlla yàlla ko yàlla yombalal te barkeel la ko yàlla yàlla dimbali xale yu toll ci liggéey war a tekki bëgg a tekki yàlla jox leen liggéey yu barkeel ñu mën a suturloo sàmm ko seen i ngor ñi nga xam ne ñoo toll ci njàngit yàlla gunge leen ci seen njàng ba lañ ci sentu ci njariñ yàlla defal leen ci lu kawe seen jot mu dimbali leen ci seen pas-pas ak seen diine ak seen àdduna ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla jubal suñuy njiit moo xam ñi jiite diine ji ak ñi jiite penc mi yàlla def ci ñoom maanu jub ak ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ngir jëriñu askan wi ba ñu kompolo ngir jëriñoo askan wi yàlla na yàlla euh, réewal ma ñu suñu way dawlu yéega leen ci barzax naa muhammad seen bàmmeel yi doon xaarukaay àjjana allahuma la tahrimna ajrahum wala taftina baadahum yàlla na yàlla sàmmal suñu diine ak suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaaxira ñuy jël suñu temm semaine bi nag mooy at ba li ñuy wax tuub waaye bala ñu dugg ci tuub ba maanaam notion bàkkaar dafa desa leer ci bopp nit bakkaar d'abord yàlla nit dafa am ñeent ñu ko yàlla booleel ci àdduna bakken bànneex àdduna seytaane euh, seytaane doon koo xam ni bëggul mu dem àjjana bakken bëggul lu dul lu ko arrangé àdduna di lu neex rekk sa bànneex moom it bëggul lu dul lu neex yàlla am lu mu la tere am lu mu la digal ñoom ñi nag lépp lu la yàlla digal te arrangé wu leen dinañ fexe ba maanaam euh, ñaawalal la ko lépp lu la yàlla tere te mu arrangé leen ñe ñeenti ñi dañ fexe ba rafetalal la ko léegi yàlla lu mu tere lu mu digle foofu la notion bàkkaar di feeñi yàlla mu ngi mel ni tey ci misaal mu jël biteel teg ñaari biteel ñi ñaari biteel yi nag seen composition posène la yow doomu aadama bu ko composé mu ko jëriñoo nga dem jël ñaari biteel yi composé ko naan waaw ki naan posène kooku moo war a daw dem hôpital yu wal loolu moo tax yàlla ni man yaamal suu'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima maanaam loolu mooy problème bakkaar kon yow bakkaar ni ko ñime sa musiba la ñaari biteel la yoo xam ne seen composition posen la yàlla ne la bu leen composé naan moo tax saa boo defee bakkaar mooy composé nga ñaari biteel yi naan biteel posen la soo ko naanee lu médecin bi gaaw gaaw mu def séquelle ci sa yaram lii mooy problème bakaar moo tax buru ko xalaat sax waaw moo tax nag ñeent yii la yàlla booleel ñoo la koy taaralal ba nga def ko ba pare léegi nag conséquence bi nag ñu di seetaan yàlla nag ni la bu leen mus a waxuma la di leen naan lii mooy li yàlla digle ak yàlla tere waaw na ñaari butéel yi soree bu leen naan loolu lay digle bi ak tere bi gaaw loolu mooy notion bàkkaar moo tax il faut que nit ñi xam ni bàkkaar du yàlla lay taq mais musiba la ci yow mi koy def moo tax tey ji covid bi explication scientifique buñ la mën a jox buñ la mën a jox conséquence su jubadi gi nekk ci àdduna la il faut loolu leer ba pare ak explication scientifique buñ la mën a jox nag mais il faut nga gëm ni conséquence njubadi gi nekk ci àdduna moom la te billaahi bu fekkoon ni tey ñi ñi jiite àdduna bi gëm nañu yàlla dellu ci yàlla mu dem billaahi day dem waaye nag li ñu yàlla na toog mooy ñi yilif àdduna bi yor ko yor doole ji yor alal ji yor doole ji yor sañ-sañ bi yàlla yàlla ñu yàlla loolu mooy problème bi moo tax conséquence su ñàkk a faale yàlla boobu moo fi indi moo tax lii tëju mais bu ñu delloo lépp yàlla rek mu dem yoonam moo tax il faut que notion bakkaar nit ñi xam mooy lan bu ko defee moytu ko mën a yomb waaw parce que ñun conséquence su bakkaar li ñu gën a ragal que bakkaar ba tey jii Covid bi li lay tiital mooy. nit ñaa ngi nekk réanimation ñu ngi am problème respiration mais métti na dëkk na mais li ko indi moo ko gën a garaaw nattu yàlla bi tax mu teg ñu ko bàkkaar yooyu yooyu na ci tiital nit ñi ñu bàyyi ko nañ ci tiital nit ñu bàyyi ko yàlla nu yàlla aar yàlla ñu yàlla jéggal suñu bàkkaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah